mu seefu ko ci ñu daram di gilloo mu sulawaata ba mu daal di ñan loo ñimee ñimee ñimee ba mel ni